fi ñuy jeexalee en tant que porteur de voix boo waxee àdduna du day dégg donc dama bëgg ñu am fu ñu waxtaanee tuuti rek ci kaawu ndeela Madior donc euh, mu yoroon pouponnière am ay liir yuñ ci wane que ni daf ko négligé ba dañ ko mujjee arrêté donc bu ñu enquête yi génnee donc ñu dégg am na six liir yi nga xamante ne nii ñàkk nañ fa seen bakkan moom aussi da daan jaay ay xale ndax nga koy jàngatee loolu. xam nga. ndee la mhm. sama jigéen ñu baax mhm. dafa lu bari lu ko gàllankoor ba gën a kut ko kut réussir dans sa vie ndee waaw d'accord ba li nga xam ne nii boo koy seetlu dans sa mhm. lu nekk gém na ci dugg pour réussir waaw d'accord nañ seet famu mu doore de créé woon na fi rajo. waaw Safir FM. créé na fi télévision. waaw. yooyu yëpp bu ca toogoon. xëy na lii ko fekk ci lii nga xam ne mi moom la bëggoon def créer pouponnière boo xam ne c'est pour récupérer des enfants. mais si wetuwul woon xale yooyu di eh, dee muy sàkk pexe boo xam ne di leen suul. pare di leen tuddee ay c'est là où le jeu. réalité jeu bi daal di tombe nga jël kenn waaw Abdou Diouf a ngi nii kenn ci xale yi. Macky Sall mooy Macky Sall. Ousmane Sonko Ousmane Sonko ki mooy Youssou Ndour ak yooyu. te sa amoo fa tur sax parce que. waaw <laughs> parce que ndera yi dégg tuddee nañu bari tur foofu. yooyu yëpp. Ah. yooyu yëpp daf dafay indi bu ko nit xoolee dana naxaateeg yu kenn xamul da nga looy dugal. Sénégalais dañ leen sax ban ne da ci tur yooyu noonu. da ciy waaw waaw yooyu moom warul tudd parce que du jigéen mooy tudd. d'accord. góor moo mës a tudd mm-hmm. te nag seeni wéyju dañuy teew ñoo ñu indil ko problème bi tey ndax ku jóg gis ko ni muy taawoo xale yooyu danga mm-hmm. naan naa ko dénk ci sama doom dëgg la ñu dem ci loolu ba vraiment en tout sincérité yëf yi day gën a taqadal ku ñu dénk doom mm-hmm. wala ñëw teg fa doom ñenn ñi ak condition yañ ko fay tegee ak moom it ni mu leen di yore looloo ko rey ci mbir mi d'accord mais euh, nañu moytu ëllëgam. Hmm. waaw. dem nañ sax ba dégg ni dana jaay. non no non xam nga. am na loo xam ne bu jibee. Hmm. loo deful sax nit ñi mën nañ koo kii mais man gaw ma ko bu fekkee ne am na it. gaw ma ni dana toll foofu bay jaayee gone. Hmm. waaw parce que au moins. xam papaam. te xam ni bu jaaroon ci tànku papaam. Mm-hmm. dégg yii ko fekk nii dal ko it du ko ci dal. Mm-hmm. yàlla dugg na fi mm-hmm. pour les femmes qui veulent se marier. waaw waaw yooyu yëpp daf ko topp gàllankoor ko. te nit euh, ce dont réussir en fait dans sa vie. mais yoon wi mu jël yoon woowu. moo mokkagul ba lu mbax. d'accord mais tamit papa am na ñu bari ñi ngi naan tamit état da cee am par de responsabilité. Ah, parce que parce que daf leen aussi yàgg na di toog deux ans émission boo ko jël man yàgg naa dafa moom émission mais à chaque fois da lay wax que ni am na ay xale yu mu yor donc tey bi ñu demee ba lii am ñu bëgg taxaw est-ce que bu ko defoon bu njëkk dina yàgg fii. wax. waaw li ko li elle ah, a trop de choses pour réussir. elle a veut beaucoup de choses pour réussir dans sa vie. au moins mu téye ci dara loo xam ne nii lii dëgër na. mais boo xoolee fi mu jaar yëpp. am ci ay péripéties. je crois que bu defoon une très bonne lecture de sa vie par rapport. à ces choses là. li ko dal du ko dal. je suis persuadé eh, eh, que fi ñu ko denc. elle est en train de regretter pas mal de choses. actuellement mi ngi mandat dépôt. mi ngi mandat dépôt. waaw mais la ko indil loolu. Mhm. Euh, moom xam na ko. Mhm. loolu la wax fa mu toog noonu wala mu nekk fa. Mhm. elle regrette beaucoup de choses. elle regrette beaucoup de choses. parce que dañ ko denc pour xam xamal ko ne ko. nit day tey. li mu bëgg a def mu xool ko sepp ko. xam yoon bi muy jaar hmm. dëggal boppam la mu bëgg ci àddinaam mu hmm. mën ko am ci njëkk ak teraanga comme ni koy sëñ sëñ sëñ sëñ bu mag bi di waxee hmm. euh, ne dañ koy kii ci njëkk ak teraanga <laughs> président njëkk ak la nekk quand tu essaies euh, une chose tu n'as pas donc euh, yal na yàlla def njëkk ak teraanga ba loolu en tout mais du lii daj tey ci kii yi moom la ndeel la bëggoon natt nag day am. Mm-hmm. la ko indil. Mm-hmm. je crois que ndel jàng na. Mm-hmm. après tout day jaaxal sax yenn nit ñi ñu ne kii naka la ko lii dalee parce que ah. bu ñuy seet intelligence am foo ko natt wees ko. dëgg mais entreprise yi mu bëgg yëpp daal ko sos jaar fa na xool def le bilan. de son passage. ñi nga xam ni ñoo interfère wu ci looloo yooyu yëpp tout ça ba bilan bi doxul. elle va trouver sa solution à elle. d'accord parce que nit ku mel noonu man bëgguma la juger. Mhm. Euh, te du man maa lay juger. dëgg la donc nit ku mel nañ ko ñaanal yàlla. Mhm. xëy bu demee ba ci kanam. Mhm. waxtaan ak xelam ak yooyu parce que ñàkk ko. Euh, dana dellu ginnaaw regretté yoo xam ne yu bari la dans te xam ni bu jaaroon ci tànku papa man gëw ma ne. lii dina ko dal. d'accord euh, papa jom ji nga xam ne séeréer. Madior Diouf waaw. Ah. te moom daan na ko wax di ko bàkkoo mhm. donc loolu mëtul loolu bàkku na ko ba tàyyi mais mëtul ko ci mhm. wàllu xel ak xalaat lay wax nii parce que du ne da ngay bëgg lii rek par force nga am ko mhm. wala da ngay bëgg lii non mën ci def pour am ko duñ ko def donc loolu àddina demeewul noonu dafa jaara yedd waxtaan ak moom d'accord je crois que son père lui manque beaucoup waaw xaw ma nu mu demee mais vraiment xam naa ni papam manqué na ko bu baax a baax a baax a baax ku xam papam xam ne doom bu mu jur lu fulla ak fayda nga war a nekk ñàkk ko sax xëy na mais am na daal loo xam ne dugg na ko nit nag mën nañ la yàq te doo ko xam ngay dox di dem di dox di dem di dox di dem am na sax ñu génn ne est-ce que xelam tranquille na ñu bari ñi ngay wax loolu loolu yëpp kii na fa parce que ñu mu créé ba fi mu mujj dans sa création jaaxalul kenn en tout cas ci ñi nga xam àdduna ni mu demee. Hmm. jaaxalul kenn. d'accord man ba mu commencé euh, di wax euh, pour les femmes qui ne sont pas mariées. war a am euh, mu wutal leen hmm. boobu laa xam ni il était sur une pente. boo xam ni si on la hmm. corrige pas. corriger cela veut dire waxtaan ak moom ba xel mi dikkaat. fa ko koy fu sori lay doon wala boo xam ni du ko neex boobu. d'accord papa bokk naa moom plateau ba tey. waxtaan ñu nag ci yooyu. Mm-hmm. ce n'est pas parce que xaw ma dëgg di ko kii. di ko kii dëgg la nit ki moo lay war a ubbil boppam. nga xam ne lii soo ko waxee. Mm-hmm. ngir waxtaan ak moom. Mm-hmm. dara du indi benn ngaañ-ngaañ wala discorde seen diggante parce que man bu may dem di waxtaan ak nit. bëgguma finalement mu naqari ko wala loolu. naqari ko te bëgg ko waxtaan ak kenn. looy wax pour ñëw conseil nit sax. ñu est-ce que yow. kooku permettre na la. nga ñëw toog ak moom di wax yenn affaire yi. dëgg la moo tax mooy moytu. mais mhm. bañu ma toog ak nit di waxtaan mhm. ci dëgg ak